Watch out, Mr. BG. a bike. Xoyantaan ngi noonu Mansour dégg ay supporter am di waa Gambia Gambian people Gambian people Gambian nation Mansour nañu so barki Rasulullah déggal déggal lii Mansour déggal lii ay supporter am takku nañu xoolal xoolal daal mu ngay fecc Mansour dala Mansour Office Excellency baa ngi wax ak ñoom. Sénégal bi yéen temps bi. lan la ñuy xool. from Sénégal. lan la ñuy xool lan la. njoon leen nañ ko bàyyi. bàyyi ma njoon. yëkkati sa loxo. oho. njoon leen nañ ko bàyyi. njoor nee na leen bu leen yàq sama bés. xoolal xoyantaan xoolal xoyantaan C'est le king, the king of lit of Gambia. mu ngi noonu nañ ko avertissement. nangu na ko. ay we nag du bëree. maa combat bi dagg. maa combat bi du yàqu maa bi du am. parce nag ay we du bëree. c'est loolu mooy yoon. xëy na yi ma ciy dégg laa ci rafetlu wul. ak Sénégal benn dëkk la lu ñaari dëkk. waaw nañu dindi complexité boobu Gambie ak Sénégal du ñaari dëkk benn dëkk la nañu rafetal wax ji nañu rafetal wax ji Xoyantaan champion la Bamba Ndione champion la kooku ñuy bam di bamtee c'est un journaliste c'est un journaliste waruñu ko def nii c'est pas normal c'est Ndione na amul wee bu fekkee amul wee dañ ko war a bàyyi mu bëree loolu mooy dëgg. ñoom ñaar amul wéy dañ ko war a bàyyi mu bëre. war ñu ko wal ñu ko war ñu ko war ñu ko mu ngi nii amul we mu ngi nii amul we ah, amul benn we Baama ñoon nee na ko ñëwal Baama ñoon dagg na yooyu mel na ni bu fekkee dafa am. amul amul. amul. amul we amul dara voilà tous fi amul day yàqu làmb ji day yàqu làmb ji day yàqu c'est pas normal. lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw. Gambie lii ñu def lii ñu def Sénégal jiwu leen lii seen mbër xamantaan keroog keroog keroog xamantaan ba mu ñëwee ba mu ñëwee ba mu ñëwee ba mu ñëwee Sénégal ñëpp nañ ko bëggee mais lii dafa ñaaw. di wane ne ay gàmbe yu gàmbe ñu fi indi gàmbe ak Sénégal benn la. amul we xoolal xoolal caméraawal caméraawal bokkul ñoom lii la. asamay we asamay we anamu. asamay we anamu. anamu anamu anamu anamu. doon bàyyam ba am sama maak man billaahi wallaahi tallaahi lii yëpp waxoon na ma ko si ñoom lii yëpp waxoon na ma ko kii bàyyam xontaan moo man bàyyam yaa ngi dégg de billaahi wallaahi tallaahi moom morom xool mu ngi nii amu ma dara xool mu ngi nii an wey damay wey anu amul amul wey amul benn wey amul wey amul wey ñëpp d'accord nañ ci